di ñaan yàlla xam ne xam ne waaye lépp yëngu famille famille Seck bi nga xam ne ñooy sëñ bi lamb ji ñàkk seen doom di ñëw Seck ci kanam kanam moom jël ko ñu ko jaale di ñaan yàlla alxajal di jël jaale association des reporters de lutte en ligne di ko teg ci loxol famille ndax tey bu ne gis na si xegal bi ñu toog donc bu ñu organisé wul dinañu yàqal suñu bopp wala ñu yàqal promoteur moo tax ci la ñuy décidé créer association bu tudd association des reporters biir naaj bi waaye ba ñu leen tàllal loxo tàllal loxo nit ñi ko laaj ñu tàllal loxo waxul làmb képp ndax li ci suñu jubluwaay mooy defar xanaa di laaj benn question rek lay laaj moom mooy amaa keroog bi mu duggee parcelle daal Papa Sow bi ko sama doom Mbour Mbaye déggee nit ñi dane ko daan naa Papa Sow waaye xiir bi am na ko mu war a moom xiir bi kan lay dal est-ce que du moo ko mën a moom moom ñu laajal mu ne man moom loo ñu màggee doon bay doxee ay dee su ma dee woon ak moom dinaa foog ay deekam sànni ko foog ko kon donc dafa mel ni que bëri ak yow lu mu yàgg def ci bopp est-ce jàpp nga ni que noonu mu ko defee ci bopp amaa est-ce que mënu relever le défi bi dox sa diggante yow waaw buur dama defoon ne affaire yi moom jarul yàkkamti ya, puisque lu ñu naan seetu asamaan jarul boo ko tey fas yéene am yeneen jotaay yi nga xam ni man ak moom lay doon tey bu boobaa la baat ak tontu di gën a neex waaye yóbbu dëggal kat ubbu làmb taxaw fële wax ma koy tontu bariwul njëriñ pour man man dama nekk ci sama yoon comme lu père Bekaay wax yàlla du ñu dimbali ba suñu début tey fukki personnes yoo talal micro huit yi boo leen ne Modou Lo roi des arènes ñu ni mënul nekk yàlla di ñu dimbali di ñu dimbali ba yàlla defal ñu loolu ñu koy sante yàlla bu baax a baax ama waxu waxu mbër la wax rek waaw waaye xam na ni moom man duma ñeexu ñebe kenn wax nag yomb waaye dañ yàlla may talag ngay na waaye dañ yàlla may talag fekk insha allah loolu moom ma dañaan bu soobee yàlla loolu laa merci waaw